asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañoo del si war di waxtaan rek ndax nit bu fekkente ni wérut du man lu bari projet bi li muy baax baax baax bu fekkente nit ñi wéruñu wéruñu euh, pour mu sotti du yomb te nag doomu aadama su bëggee ak wér ca la muy lekk lay sukkandiku bu ko defee dana mën a am yaram wu sell yaram wu dal ak xel moo xam ne dana mën a concentré wu ba ànd ak société bi liggéey wër moo jiitu lépp kan wàññi prix nan wàcci prix moom la ñëpp di wax prix bi cher na prix bi cher na prix na ndax li ñuy lekk baax na ndax li ñuy lekk baax na bu doon jar juróomi dërëm juróomi dërëm te yàlla jox la joxu la njëg du yomb bu doon jar bu doon jar téeméeri junni te nga am njëg goo ko jëndee du seer ci yow li am solo mooy am njëg moo tax le gouvernement du Sénégal sur le système économique buñ xool rek ne dana war a sarax réew mi ci lob sukkar fukki dërëm ci lob ceeb ñaari dërëm am na nu muy demee bu ko économie bi laajee kilo sukkër mën naa jar téeméer fanweer te kenn du ko yëg économie bi moo ko yéegee noonu fi ne kilo sukkër Amérique la gën a cher Sénégal kilo ceeb Amérique la gën a cher Sénégal daanaka lu baree bari ñu di ko jënd fii Sénégal la gën a cher parce que ñii seen levée économique. dafa jog tegu ci mbartal moo xam ne ah fa mu war a taxaw fa àggee danaan tekk ba tax na ñoom ñii lépp lu ñuy jaayee dix dollars dix dollars boo demee senegal boo amee ñetti téeméer am ko boobu ñeent téeméer am ko boobu juróom am ko te fii aux États-Unis ah, kenn ku ne xam na ne dund fi yombut waaye lu njëg yi cher cher cher organiser nañ ba système économique bi mën a ànd ak ak dundug nit ñi ba tax na ñun ñëpp fii dañoo assuré ba assuré lekk gi ku fi nekk boo lekk boo woppee faju ku fi nekk boo xiifee lekk même boo amul foo tëddit mën na la lijjantil foo tëdd loolu lépp organisation boo xam ne gouvernement bi moo ko war a def la ma dir si ci nu wàññi njëg yi wàññi njëg yi xam li ñuy lekk gën wàññi njëg yi xam la ngay lekk ko gën bu dee posen boo xam ne juróom benn téeméer lay jar ñu jaayee la ko ñetti téeméer boo ko lekkee da nga xam ne njëg gu yomb du ci dara kan toog waxtaan te boo ko waxante dëgg waaw ceeb bii dañuy dem di ko jënd ci àll ba di ko indi ceeb bi bala na moon nu yomb nag nu am ko di ko bàyyil suñu bopp ak di koy jaayee waa àll bi bu ko defee non seulement dañu emploi yi doy te ñoo koy bay dañu xam li lekk mais tant que li ñuy lekk euh, wóor du yàgg mukk ba Sénégal bi wér lekk lekk yi ni muy duggee ci aéroport wi noonu lay awee ci poor bi muy tamaate muy dawlin lépp bitim réew ngeen koy jële di ko indi ci réew mi te ñi leen koy jaay duñ ko lekk masalan dawlin ji nga xam ne yéen a koy togg wërta dem ci gémmiñ wërta ci gémiñ teewul ñu ngi koy lekk lekkin woo xam ne daganut sellut te baaxul dawlin ji Chine lañ koy defaree les rejets des caniveaux les rejets des abattoirs ak waañ yi nga xam dañuy mag yi nga dañuy togg bu noppi seen diwlin ji dee yi am nañu ko recycler ko jënd huile moteur bu dee bi sax dañ ko ci def Chine lañ koy defaree fii Amérique benn diwlin jóge chinois du si dugg parce que ñoom xam nañ li ñuy def les déchets toxique la ñuy jël créé ci dëwlin boo xam ne moom lañuy def ay colorant indi ko Sénégal di ko jaay dëwlin jooju nañ koy defaree boo ci tegee sa bët te ne ab jullit la waroo ko indi biir Sénégal di ko fi jaay te dëwlin jooju moom la ñuy lekk en retour chinois yi dañuy ñëw jënd suñ gerte noonu jëndaale ràkkal ji yóbbaale ko Chine bu demee ràkkal ja bu génn diil Sénégal ñoom bu ñu ko liggéeyaat mën a jigéen yeneen vingt litres nu war a jóg nag xam ne bakkante su ko foye te Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye yaa rakk Farba Ngom jooju dawlin ji ngeen di indi baaxut bu ngeen ay jullit laa ay jullit da ngeen mooy dawlin ji Sénégal gépp a feebar amul benn Sénégalais bu wér ana lu ko waral dawlin ju bon ji ngeen di jële Chine di ko indi di ko distribuer ba mu tas ci réew mi ba ñi juddu démb sax wéruñu ndax seeni ndey lañ leen di nàmpale baaxut moo tax yàgg naa ko wax wax naa ko Macky Sall xamal ko ne ko port bii laboratoire bi fi nekk du dëgg nan créé benn laboratoire bu moderne boo xam ne potu sar dañ sax bu duggee ci dañ koy xam ñu war ñoo lekk mbaam te lii ma la moo am demal Chine nga commande ay ay ay popcorn yoo xam ne nga commande ay ay pot yoo xam ne mbaam xuuxa ci ne yàpp mbaam dañ la koy defee léegi bind la ci nag ne moom la te lépp ay fen la ay julli yi ko consommé moo tax laboratoire boobu dafa war a ñëw noo xam li ñuy lekk mooy lan dangeen di xool imam boo xam ne war naa jiite ji jàkka ja ah soxnaam toggal ko wala ay doomam toggal ko ceeb boo xam ne dëwlin googu ji lañ ci dëwlin mbaam ji lañ ci def daa mel imaam bi lekk mbaam ba suur dem di xutba ñu di ko déglu moo tax yàlla laxas ak tële ci ñoom ba amul benn xutba bu mën a wax mu jàll réew maa ngi yàqu na munoo reere mba añee mbaam xoox ah ndekkee bër boo xam ne graisse mbaam lañ ko defe ñëw na damay jiite ay jullit xutba leen yàlla ci bu mu ci dul ànd moo réew mi demee nii li kenn wérut te lii ma leen dox mooy li am waaw ma nekk fi bu yàgg nag di diir ak waa hôpital bi xam nu mu demee moo tax may wax ak yéen le gouvernement du Sénégal nan tabax ci biir port bi laboratoire boo xam ne lu fiy dugg ñu di ko sex wala lu fiy dugg nar dem ci aw yaram laboratoire bi vérifier ko xool ko même am na pâte dentifrice yoo xam ne ñu koy dugal ci réew mi repasse lañ ko def repasse lañ ko deferee loolu lépp waruñu ko bàyyi mu dugg kon wax ci ñu wàññi njëg yi nañ freiné posen bi nañ freiné posen bi te ñi nga xam ne victime lañ ñu jéem jubli ci ñoom lu leen faje li ma leer wóor ma mooy Sénégal kenn wéeru fa kenn wéeru fa ana lu ko waral lii ñuy lekk mu jëm ci dëwlin ci lii ñuy lekk mu jëm ci beurre bi lii ñuy lekk ak li ñuy jëfandoo ak diw ci suñuy der mu ñu ko ay cancer yoo xam ne lu cancer lu mu doon dem na ba ci rouge à lèvres yi lépp mbaam xuux la rouge à lèvres lépp mbaam xoox la yi ci gën daal mbaam xuux la ñuy jël deru mbaam xuux defar ko rouge à lèvres surtout mbaam xuux bi door a bu tuuti boobu moo leen gën a arrangé moo tax yenn cosmétique yi ñii di cher ñii di yomb ndax mbaam xuux yu ndaw yi la ñuy jël nga xam ne bu leen pàccelee def leen beurre day mën a ànd ak rouge à lèvres nga xam ne der der la doo ci am benn problème kan jóg ci suñu bopp jéem a xam naka la képp koo xam ne sa jabar mu ngi def rouge à nga di ko macc daa mel ne jël nga ñaari faari mbaam xoox lekk ko ba mu jeex tàkk dama ne rouge à képp koo jox sa boroom kër xamal ne ko lii nga doon màcc sama nijaay lépp mbaam xoox la lépp mbaam waxuma laa nag nga yor koo xam ne ci alxuraan da jëm wala koo xam ne dafa jiite mbooloo wala koo xam ne dafa wax ak yee askan wi nga jël mbaam xoox jañ ko ko guddi gépp mu di ko màcc kooku kooku wërta dem ci jumaa sax banaan damay jiite am na ci ñun bu ñu jógee suba gaanuwaay day xonq cor ndax rouge à lèvres bi nga xam ne moom lañ fanaanee màcc moo tax nañ ci def attention tubaab yi ko sukkar yi mu def ci pasti yi mu man mante ko ba mu yow boo ko ñamee benn yoon da nga mel ko adik da ngay mel ne koo xam ne dafa sax ci sa weer da ngay dem ba psychique da ngay dem bu bokki sul dof waaw moo góor yu bari bu si yeneen tuñuy jigéen rek naan pat pat pat pat lu ko waral da mel ni ci adik drogue la drogue la yàlla ni yàlla musal ci yu mel noonu te buñ bokkut di waxtaan ak lu metti metti ñu dégloonte te xalaat ci te di gëstu waaw beneen bi ci des ma bëggoon ñëw yéen ci ray gi nga xam ne ñu ngi koy rey lu mel ne senelek Senelec usine la boo xam ne day rey nit SDE ak senelek ñaari compagnie yooyu liñ rey ci sénégalais ren rey ci sénégalais cancer reyu ko dama ne ñaari séné ñaari ñoom liñ rey ci ay dama ne kenn xamul lu mu toll prenons exemple ci la SDE SDE li ci gën a dangereux nga xam ne américains yi jóg nañ ci add bi jóg ci Nations Unies jóg ci mooy la maladie du plomb la maladie du plomb gëstu leen ko gëstu ci xale la ay ak jigéenu wérul la maladie du plomb su la jàppee wala mu jàpp xale bu jàppee xale daf koy bank da koy bank ba xale bi ay màgg-màggam di jóg boo xoolee óom yi calcaire bi nekk foofu du nuróog yax yi ci des yooyu mooy banque xale bi bu wóom yi demee lu ubbi ko xale bi ci boppam day waccu xale bi ci boppam du màgg xale bi ci boppam xel mi ci boppam day mel ne drogue da tey jàngoro ju mel noonu fi ñu koy fekk mooy kër yi nga xam ne peinture bi dafa màggat kër yi nga xam dañ koo tabax bu yàgg peinturuñ ko nga xam ne da ciy taw muy góos ak terrain yi xale yi footballé nga xam terrain danaan taa taataa yooyu ak pënd boobu moo jàpp xale bi ba xale bi intoxiqué ba tax na le gouvernement du Sénégal war naa jóg ci gëstu la maladie du plomb am naa lu ma wóor ne les Nations Unies avertir nañ gouvernement du Sénégal mais ñoom seen nekku ci na ngeen gëstu la maladie du plomb te la radio télévision du Sénégal war a jël ay recherche woon ko nit ñi robinet yi nga xam ne moo nekk Thiès am na ci robinet da koy ubbi ndox mu xasaw di génn ba mu yàgg ndox mu ñuul kukk di génn ba mu yàgg ndox mu robinet boo ci am loolu bu ci am loolu rek ndox may dikk sax day àndaale ak plomb te kon baaxul plomb bu jàppee jigéenu wérul <coughs> day banque doom ji <coughs> bu liir bi juddoo yow ndey ji danga koy ragal liir bu juddoo xef yi day fënd xef yi day mel ne dañ ciy diw bër yow ci sa bopp boo xoolee xale bi xool biir bi ak poxtaan yi danga koy seexlu ba yow mi jur xale bi sax doo ko ñeme ana lu ko waral ndey ji plomb boobu mu doon consommer di ko naan mooy li ko jàpp dama ne la plomb mën naa jóge ci ndox moomu ngeen di naan te am na ci SD am na te ñoom duñ ko weddi te lii moom bu ñu ko weddee jël ay scientifique ñu dem xool ndox mi ndoxum essayé de warta dugg ci gémmiñ ban di ko naan surtout jigéenu wérul baaxul te waawoon mbooro ak tund woo wépp phosphate bi nekk pënd boobu yu jógee ci fa ci ci phosphate bi di daw di romb muy wagon yooyu lépp plomb la moo tax institut bi nekk Paris Piquet wala something like that defoon ci ay recherche ak waa Burkina Faso dañ ne raay bi nga xam ne moom la saxaar gi aw bu mu aw ci dëkk bi na teggi dëkk bi huit kilomètres moo tax Tiwaawan avorté yomb fa moo tax Tiwaawan silmaxa yomb fa moo tax Tiwaawan feebaru gone yi am fa moo tax Tiwaawan liir yu bari duñ judd duñ mat wala duñu am doole wala liir yu baree bari buñ juddoo yow mi leen jur sax doo leen ñeme plomb boo ma ne mooy jóge batal di fëgg ci Tiwaawan di fëgg ci tund yooyu mooy li nga xam ne mooy rey nit ñi moo tax état war na cee jóg état war na ci jóg bu ñu jógee ci ndox mi tous kan dem ci Sénélec Sénélec li muy rey kenn xamul nu mu toll Sénélec food poisoning food poisoning mooy aliment empoisonné loolu Sénélec di def ni mu koy defee mooy lii Sénélec da ngay jënd sa am dugg doonte jënd wala loo xam def ci biir frigo bi bëccëg bi dana ci coupe ñaari yoon te jën yi doo ko sànni jën yi sax da dugg pour mu jëm weer mais biir weer wi courant dañ ci coupe trent fois te coupure bi mu coupure rek dana mat une heure temps wala trente minutes bu ko defee jën yooyee day décongelé bon bu congelé waatee day indi jàngoro ju bon la yéen joxe moo tax fii aux États-Unis exemple kon Edison bi fi courant coupé une minute une minute télévision yëpp benn kàddu lañ wax képp koo xam ne yoroon nga am ndugg ci sa frigidaire nanga ko lekk léegi boo ko mënta lekk léegi na nga jël lépp sol ko ci les bacs bleus maanaam gaa bi su bleu lañ wut ngam lañ ko ciy def am na oto spécial bu koy jël si nee bu dikkee jël ko da koy ber yooyu bu ñu demee dañ koy gas bu mu xóot ñu suul ko ba taal ko ana lu ko waral dañuy bañ xaji lekk ko walla ñu seen xel neexul ne ci àll bi di taxawaale ci mbedd yi lekk ko lekk ko teewul kon audition ndugguma yow yaay bind ni mu toll ñu remboursé la ko parce que ñoom ñoo ko yàq rek nag te am dugg muy coupé ak a coupé waat di coupé ak a coupé waat ngeen di jox seeni doom expérience bi ma ci am mooy ay kilifa ñoo jógee Sénégal ñëw États-Unis di fi faju si bu ndikkee ñaari di ci ëpp dañ may boole ak ñoom parce que am naa ci ay relation ci hôpital bi ndax suma jabar ci la nekk yaa ngi dégg loolu moo may chance ba ma découvrir lu bari am na kilifa yi diine yoo xam ne bu ñëwee docteur bi xool day xool du gis dara bu xoolee du man a gis dara daka naan yow food empoisonné nga dañ la da ngaa lekk-lekk bu baaxut mu ne pourtant damay lekk de damay lekk ma ne ko nooy lekkee alaaji mu damay rey am xar ah wala ma jënd samay ginaar ñu mbuusal ma ko defal ma ci frigidaire bi man yàpp rek laay lekk ak ginaar ma ne ko nag loolu moo la rey ma explique ko docteur yi nit ñi seeni courant chaque minute ñu coupé la ca nekkoon duñ ko sànni dañ koy lekk mu ne ah, waa ji dañ ko mujj a floche tegal ko ndox raxasu ko bàq gi raxasal ko lépp mu tàmbalee normal ñu ne ko bu ëllëgee boo dencee aw ñam ci frigidaire ba courant bi coupé génne lépp nga lekk ko waaye bu mu fa fanaanaat man ko lii la doon bëgg a rey lu bokk xam ne Senelec xam nañ ne xam nañ ne bu courant coupé la fa nekk dara baaxu ci parce que fii leen jàngi ci réew yi leen jàngi xam nañ lépp kon ba li ñu wax wàññi njëkk le gouvernement bu jóg organisé waat SDE SDE mi ngi jeexal waa Sénégal te lii ma leen di wax wut leen ku leen neex mu defee leen recherche da gis lii ma leen wax ay bactéries moo ne ci ndox mi ngeen di ko naan biir tuyau SDE tuyau bi tuyau SDE bi ah boo ci dugaloon rato ñoddi ko ay jën sax a ngi ci ay jën a ngi ci ay jaane ngi ci am ñaxa ngi ci les plantes aquarium ñu ngi ci biir les plantes aquatiques ñu ngi ci biir ak yeneen i ak i mbott loo xalaatu rek boo gasi tuyau bi da ko ci fekk parce que dafay yàgg te musuñu koo nettoyer musuñu koo floche nee naa la Thiès dangay ngay ubbi robinet mu mel ab duus buy xelli muy ni duus buy xelli nga bàyyi ba mu loola dem nga nga meneen ndox ñëw muy dem ba mu jàgg mu tàmbalee leer bu mu jàgg mu leer nag nga dootu caa mën a togg te kenn ku ne xam ne nag loolu rafetut te du dëgg du yoon te ndox moom gone wuru ko naan waxoon nag génn ju ëmb kon wàññi prix yi dëgg la te doon war wàññi prix yi te daanu ko wàññi war nañoo liggéey nag liggéey boo xam ne dana tax prix yi wàññi ko gouvernement bi li man dana ko def subvention yi mosu koo bañ danañu ko def waaye lii nga xam ne dañ koy lekk te baaxut suñu doom di ko lekk te baaxut nañ ci taxaw boo demee CM2 nga xool xale yi daanaka ñun ñëpp nuroo boo leen futtee sewaay bi benn la tutaay bi benn la xale bu fukki at ñaar ci Sénégal ak xale bi fukki at fii aux états xale bi am fii fukki at ñaar boo leen peesee mën na ko mën na ko ñaari yoon te moo koy gën a gudd moo koy ëpp doole. ana lu ko waral li ñuy lekk la américains yi contrôlé kon Sénégal li nga xam dañ koy seex maanaam li ñuy consommé war nañ cee mën a jóg lijjanti ko. buñ ko bokkee def ak wér dana yomb te kat sunu maam dafa ne nit buy naan ndox mu set di lekk-lekk gu baax nee na ko ko boo woppee da yomb a faj xol bi xam-xam nun nag boo ba nega nit toog su maam it dellu wax doomu aadama boo ko bëggee làmb daj ko làmbal la muy lekk doomu aadama boo koy seetal wala nga di ko su bëgg a xam nu mu demee Ah, xool njëlam bu ngeen demee Kajoor tey ñay reere cere mbuum ak ràkkal ñuy gën a gudd ñuy ëpp doole ñi nga xam ne dañoo tàmbalee lekk dawlin ba tax na nag góobu gouvernement bi jóg Aziz Ndiaye ak doomi Farba Ngom ji mbak rakki Farba Ngom ñu wax ci neen daal leen dawlin ji baaxul lu ma dix ans ngi ma di ci wax di ci wax waaye nangu luñ maa déglu awma pexe du dëgg awma pexe bay xaru du yoon boo amul dëwlin am nga ay scientiste nañ xalaat ñoom fu mën a jëli dëwlin huile de de fleurs yi ak fu mën a jël dëwlin ba indi ko ci dëkk bi waaye na dëwlin yi jógee Chine ngeen di ko consommer non seulement yàq na seen diine mais yàq na seenu yaram waaw yàq na seenu yaram xale yi plomb bi ba tey xale yi dañuy football ci kuuru école bi école bi nawet bépp dafa taa pënd boobu baaxut plomb la xale yi dañuy dugg ci ab salle de classe classe bi taa ciment bi ak xoositi peinture yi xale yi yendu ci classe bi day mel ne dañoo fanaanee gens xale yi dañuy yàqu exposition bi moo bari fi jigéen ñi fóotit póotit póotit di ko tuur ci mbedd mi pënd bi jóg xale yi di ko noyyi baaxut kon dun bala ñuy wax wàññil ak yokkal war nañoo xam li ñuy wàññilu posen la wala du posen waaw miiru kër miir xale yi di xolli peinture bi di ko lekk baaxut day tax xale bi xel mi day bank loolu ñu naan li li américain naan intellect defect lay joxe intellect defect moom lay joxe day mujj sa xel du mën a téye ah sa xel du téye mukk Imaginez-vous, c'est très simple xam nga ne gens nga tooyal morso di taf ci sa bakkan di nooy da daal di màndi sa xol dagg yow noo mën a jëlee butéelu di liyan sotti ko ci peinture peinture néeg bépp ba pare tëral sa doom ci kaw lal bi mu fanaanee gens ba bët set li ñuy rey ci noonu la am na peinture bi fi nekkoon fii aux États-Unis américains yi dañ ne bu ko kenn peinturé ci sa kër kenn peinture ba dañ ko indi fii teg ko gallon bi un dollar lañ ko doon jaaye un dollar lañ ko doon jaaye nga ne boo ko jëndee yóbbu ko naa en Égypte jaay ko fa ungi dans les pays africains jaay ko fa amoon naa possibilité yi mais man lu ma ci masam ay égyptien égyptien ñoo koy jënd égyptien ñoo koy jënd bu ko jëndee fi seen conteneur yóbbu jaayi mosuma ko xalaata dugal Sénégal mosuma ko faa xalaat égyptien yi ko jëndit xam nañ li xew ñoo ko bëgg waaw ñoo ko bëgg di ko jënd ñoom di ko yóbbu seen dëkk di ko fa jaay le quinze dafa mel ne rek diluant nga sotti ko ci mbaaj mi tëdd ci kaw moo diw ko ci mbiir bi tëdd ci lal néeg bee kon li ñuy consommer na xam lu mu doon li ñuy lekk na nga xam lu mu doon nu ñaan le président de la république benn équipe bu mat sëkk te encore une fois waxoon naa ko fi assemblée nationale assemblée nationale nañ fa dugal vingt pour cent imam vingt pour cent imam imam yi dañuy dimbali ci consommation bi imam yi dañuy dimbali ci diine yi imam yi dañuy dimbili ci loi yi nii teg ba tax na war noo mën a bokk jóg nag ah fal imam yooyu te buñ koy falit duñ ko fal ci diw laa sant déedéet dañuy seet ñu am xam-xam ñu ko mérité ah ñooñu toog waaw waxtaane ko lépp luñ teg mu war a dugg muy ceeb ak lu mu a doon lu ne document bi koy valider na aw ci imaam yi duñ bàyyi kenn di fi dugal mbaam xuux waaw bu dee boo dee chrétien nag nga commandé say mbaam xuux ñu la bàyyi nga jël say mbaam xuux boo ko commercialisé commandé ko say bokk sa bokki chrétien mais réew mi moom lu bon du fi dugg lu wér du fi dugg waaw lu docteur xool ba jaaru maana du fi dugg njëg gi lu mu cher cher moo tax ñu wàññi prix bi jaay la posen jaay la poson wàññi prix bi jaay la poson moom loolu dana dakk bu soobee yàlla te Senelec la ci gouvernement bi jóg Senelec baaxut coupure yi muy def ëpp na nit ñi li dee li dee Sénégal ci cancer li ci ëpp Senelec moo leen rey ndax food poisoning boobu ma leen di wax SDE dama ni li jëm ci plomb maanaam xeeboon naa yu xale yi xeeboon xale yi lépp SDE la moo fi indi plomb bi waaw kër yi nga xam ne kenn du ko peinture taw bi di ciy dikk peinture bi xoosu ciment bi jaxasoo xale di ko noyyi ak bulwaari mbedd yi ngi tuur poti bi xale di ci football moo tax Sénégal yi mënuñoo wér te xale bu wér du mën a jàng mag bu wér mën a liggéey aw askan aw askan bu nu wér duñ mën a sakkan moo tax état bi ne jóg ci lii nga xam ne moom laa leen wax mu bokk ñu bokk ci taxaw Sénégal nag noo ko moom kenn ku nekk am sa kàddu war cee wax lépp loo xam ne xalaat naa su mu dëppoo ak ak akuk defar kenn mënu ma cee tee waaw Macky Sall woo na ma waxtaan ak man lu yàgg bëgg maa nome ma ne ko bu ma siiwal bu ma nome bu ma fay saleer li ma man daal mooy lépp loo xalaat naa ko muy defar danaa ci wax lépp loo xam ne yaa ngi koy def muy noona doomu ci dégg lépp loo xam ne yaa ngi koy def ma yaakaar ne baaxut danaa ci indi samay kàddu waaye amaana di ànd yow di liggéey nga di ma fay man xalaatuma loolu kon yii ngeen di wax ci Macky Sall bu fekkonte ne bëgg naa alal te alal tax may wax ci Macky sàll ak Abdoulaye Wade laay amee alal waaye loolu yëkkatiwuma Sénégal moo ma ñor ak dundu waa Sénégal ak njàngum waa Sénégal loolu moo ma intéressé mais du leneen ah maa ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ñaanal ñëpp jàmm di wax waa Sénélec góor góorlu waaw bu mel ne danaa waxtaan ci orange orange danaa ci waxtaan ci orange orange liggéey man da ko liggéey ba tey ah ñëpp a tiit ñëpp a jaxasoo ndax muy général muy capitaine muy kilifa ak diine ak ku mën a doon ku am importance ci dëkk bi foo ma sa jëlee sa téléphone di wax ak sa jabar sax orange am na enregistrement bi moo tax kilifa yi diin yu baree bari yi ñi mu ñu dugal ubbi seen gémmiñ ndax ku wax ñu jëli kase di indil la ku wax rek orange mën na laa daaneel moo tax réew mi jaxasoo jaxasoo koo xam ne même ñii fi nekk bëgg noo dóor waaye doo xam fu ne xamuñu fu ne jaar ñaare lépp yi yeexante nii xam nañ li xew kon maa ngi ziara di ñaan jàmm eh, di ñaanal président Ousmane Sonko eh, yàlla dolli aw fanam di ñaan président Diomaye yàlla dolli aw fanam te projet bi nga xam ne noo ko bokk yàlla aaral ko boppam aaral ko boppam ban man cee bokk jariñu ñun ñëpp te yii nga xam ne mooy xew ci réew mi yàlla jeexal ko tàkk ay SDE ah ay orange yu ñàkk fayda yi nga xam ne ñu ngi jeexal réew mi yàlla yemale ko fi surtout seen yàlla ko yàlla mooy ay moyens yoo xam ne courant dootu coupé ndax fu courant coupé rek rey na fa ay doome aadama yoo xam ne moom ci boppam xamul nu mu toll te lii may wax ñoom xam nañ ko te lii may wax gouvernement bi xam na ko waaw may ziyaare bu baax tey jéggalu euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf